waaw bàyyi ne kay fa ma dañuy nan laay tagee li man ñeel yonent yàlla Muhammad salaa sallam nga xam ne xadimu zaraawu ka koy liggéeyal jabrailu moom mooy jibril al amini kuñ wóolu ku tuulal layaale guddi yëpp jibril serviteur yonent yàlla Muhammad salaa alayhi salaam la bàyyi na kay fa ma day nan laay taggee la hoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasal kawnu te mi turan lépp min sanaawu moo ngi jógee koo ci leeram wasaaka yonent bi sallaa salaam wa sallam zeynu rijaali taaru góor ñi de bàyyi na kay fa ma day nan laay taggee yonent bi sallallahu alayhi wa fa nayaraani moom mooy ñaari leer yi di jant beeg weer wi moom mooy moom mooy baru xaqiqa bàyyi ne kazal anjumu noonu tamit biddiw yi naziru tuuti lañ min nuurihi jóge ko ci leeru yonent yàlla ma salaa sallam almutaale gu kawe bàyyi ne kay fa nan laay tagge la hoo yonent bi salaa sallam albihaaru kasal kazal amtaaru noonu tamit taw yi nazrun tuuti lañ min juudihi ci mayam almutawaale gu tegoloo waaw bàyyi na kayfa madihi nan laay taggee lahoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al ulumu xam-xam yi waaw jamian ñoom ñëpp xatratun benn toq lañ mboolem xam-xam yi benn toq lañ waaw dëgg-dëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaw bàyyi na kay fa ma dañuy nan laay taggee lahoo yonent bi salaa sallam al oloomu xam-xam yi jamiaan ñoom ñëpp xadratun benn tokk lañ min fi taxlihi joge ko ci sang bi sayaale gay wala ngaande bàyyi na kay fa ma dañuy nan laay taggee li man ka nga xam ne naaw tagg na ko ilaahi yàlla munzulun wàcceel nañ ko alquran fii ci tagg yonent bi salaa sallam duuna ma ijmaale ci lu dul dajale de baana ne kay fa ma day nan laay taggee muhammadan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax wa moom ruuxul matxi moom mooy ruuxuk tagg aqwaama daayihi ki gën a dëgër ca ñay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laale ci coono la nekk de dëgg-dëgg tagg yonent bi sallallahu alayhi yombul yonent bi rek moom moo mën a tagg boppam kay fa nan laay taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam is anta ndax yow baay aksarul kulli yaa gën a gàtt ñëpp waaw baaxañ ñay xaamidal fikri ku fay xelaan nga anta yow baay zu iqilaale danga tuuti bagage ñuy tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax góor yàlla ñoom bu ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw dañuy damm seen daraja damm seen lépp ngir yàlla xeer xarañal tagg yooyu de bàyyi ne kay fa ma de hiin an laay taggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam laakin nag har wil gaawal tatafal nekkal ndaw fii nekkal ndaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa fa litul ngir mu fekk la fii jumuil madaahi ca mbooloo ñay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qabla nawaale balaa moo séddale may gi de nekkal ndaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yàlla dëgëral la ci tagg googu nga xam ne yaa ngi koy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa na qum jógal wa harwil gaawal wastan ji dan na dimbale ko aw dimbal ndimbal rabban borom bi maalikan ki moom mbindeef mi ni awnu est-ce que ndimbal gox gu jógee ko minzil jalaale ci borom boromuk màggaay te mooy yonent tibi sallallahu alayhi wa sallam booy wut ndimbal booy dimbale ko na nga dimbale ko yonent tibi sallallahu alayhi wa sallam na habba rafet na sil ko nisbatin askan nasabathu askane na ko sunnatul mustawa yoonu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa dooqi du dëgg almaqaale borom kàddu dëgg de bàyyi na xat ba daa feeñ na afdalul wujudi ki gën ci mbindeef kiraaman mu nekk ku tedd min kiraamin jóge ko ci ñu tedd afaada leen ñu gën ab taale ay jàmbar lañ de nasabun askan la fuddulu gën a leef nañ leen kiraaman ñu nekk ay nit ñu tedd wa kullun képp ci ñoom waa muxsinun aji rafetal la laa musaafihun nekkun njaalakat bi tawaale ci toftalo bàyyi na faqad axtaara tànn na ko rabbana suñu borom aadama aadama waxtaara gindaaw aadama shisha alwasiya ki nga xam ne moom lañu dénk secret yonent yàlla aadama de moom sissa moom mooy ki doon secret yonent yàlla aadama haawi moom moo làq almaale maqaamoy kawe yi waaw bàyyi na suma idrisa topp ci idrisa baada haza ginnaaw sisa li haza jëm ca idris xat sama yëkkatiku na min nuuri nabi jóge ko ci leeru yonent yàlla moom salaa sallam almifda aji gënde summa nuuxan topp ci nuuhin summa xalila topp ci ibrahima wa isma topp ci ismaila illa wax wa mooy kañ waxoon dañ koy rendi zeynu moom mooy taaru góor summa addanaan topp ci addanaan waaw leer ga jaar na ci addanaan baxda summa maada topp maat waaw ci maamu yonent bi la bokk wa nizar topp ci nizar lu rafet bisilkil aale ca koqoor de mu darun topp ci mu dar najluhu doomam di nizar wa ilyaas topp ci ilyaas mahmudriqatin ànd ak mahmudrika maa xuzaymatin ànd ak al abtaale jàmbaar yi de wabnu haza doomu xuzayma kinnaanatu kinnaanatu la tudd waaw a nadri nadri ñëw yan wi dana askanoo maalikan maalik asla fiiri maalik moom mooy cosaanam fiiri saafi ci set alqisaale cër xaalibu xaalibu ñëw naj la hoo doomam di luway wa kaab ak kaab naj la hoo di murata kilaabu kilaabu ñëw alxaale mu kawe wi de wa xuseyu xusey ñëw mooy abu mughirata yan wi moo ngi ci askan wi haashimul xir xirxu haashimu moom mooy sang wi almustafidu di aji sotti anawaale may de baada hazaaka ginnaaw haashimu shaybatu nuuri shaybatu leer walhamdi ak cant wa abdu illaahi shaybatu moom moo jur madde waaw waalidul Moustapha Abdullahi moom moo jur yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azabbihu moom lañ waxoon dañ koy rendi almufadda ñu jëndee ko téeméeru gëlem de aaxir awale moom moo mujj moom moo njëkk bi duuni mu xaale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi tafaaqin ma bayna haza wa adna diggante Abdullahi waaw ba adnaan góor ñi dajee nañ fa loolu loolu wér na de wa ma badoo waaye nag la adnaan bi xol firi jaali góor yi wutee nañ fa de wa sahihun wér na bi annahu na yonent bi salaa sallam najlu ibrahim na doomu ibrahima la wa wa ibrahima alqalilu moom mooy xaritu yàlla yàllal xilaale est ce que xaritoo googu de rabbi yow yàlla atire na ma xeeñal xabral aminu bàmmel yonent bi salaa sallam ci julli yu bare wa habli na ma may nusratan ndimbal kay anlu ngir kawe alal ajyaale ci kaw giiri allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim